maxat xikmatul yawmi li tarbiyatil islamiya wa taalim markas Cheikh Ahmad Bamba Touba Daaru Tanzil ak maxat xikmatul yawmi li tarbiyatil islamiya wa taalim markas Cheikh Mahamadul Mourtada Thiès cité ouvrière ñoo leen di may xikma bi di ñaari daara yi nga xam ne nii taxawal nañu ko ba tut tànk yi ñu ngi ci jàng muy góor ak jigéen ku ci bëgg leeral wala nga bëgg fa andi sa tut tànk nga woote ci 77 633 77 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale soññey sëriñ bi jëm ci jullit ñëpp waaye rawatina ñi jiite mbooloo te fan yi ñu andi woon ci yu ama am solo ndax ndénkaane sëriñ bi moom amal nañ njëriñ bépp jullit rawatina ab taalib kon sëriñ bi ni mu ko daan waxee rek ci taalibe yi ànd bi nga xam ne nii ànd nañ ko itam ak sëriñ si di xamal sëriñ si na leen kat taalibe yi dangeen a ànd ñoom ci yoonu yàlla waaye lépp lu baax luñ def seen bopp lañ ko defal kon rek waaye bu ñu leen gën a jëf ndax li ngeen jëf rek ngeen moom kenn ku nekk ay jëfam suñu borom maandu na ca ba moom la koy jox nag kon nag jëruñoo wéttali ko seeni jëfit ah ku yaakaar ne da nga koy dolli ci say jëf wala nga koy sakkanalee say jëf dangay nax sa bopp waaye sëriñ Tuubaa moom lépp leeral na ko ba tàyyi te ab sëriñ moom sëriñ Musaa Ka tënkoon na dawroom maanaam warteefam li ko war tënk ko ci jàjju ba dafa waxoon ne sarti sëriñ jàjju ba mooy tënkam ba jàng ak ju leeg bay joxe ngir yoneen ba sëriñ bu def yi aw siraatal mustaqim ku ko deful ma nga ci ñal yenn xiim yàlla bu muy samab sëriñ ci diine mbaa muy samab taalibe kulla xiini wa man taallaqa bi waasilin wasal wa bi aksin fasal loolu bayitu sëriñ Tuubaa la ku aju ci ku àgg kat da nga waaye ku aju ci ku àggut kat doo mën a àgg kon taalibe yi tamit nañuy seet ah, eh, ñi ñuy àndal waaye àndu yaa ma neex wala àndu politique ku ko def moom naxoo kenn nag ku dul sa bopp ndax bu fayu jotee itam doo fayu kon nañuy góorgóorlu bu baax a baax ah, ñu mottalee ko tey nag dénkaane sëriñ bi ci xikma yim daan joxe dafa waxoon ne ñett ñii de bu ñu gane jee ñett ñii ñu fa yàgg ñu ne ko ban ak ban mu ne jàmbaar ju am kàttan te nangoo léggéey bu ko taraanga ganajee dana fa yàgg yaafus bu nanguwul a liggéey te mën a yàq bu ko ak ñàkk ganajee dana fa yàgg mag mu am juróom-ñaar fukki at jëm kaw bu ko tawat ganajee dana fa yàgg kon nag bëri na looy gis muy gaar nit ci ak ñàkk wala ci toroxtaane moo ko teg boppam waaye képp ku yëngatu ci lu baax sunu borom dana la dimbale ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ne alxarakatu baraka yëngukat barke la kon ku yëngu rek sunu borom tabaraka taala dana la defal barke waaye moom yaafus képp ku ko def taraanga yi àdduna moom dalay jomb ku nanguwut a jaamu yàlla tamit àjjana yi ëllëg dana la jomb kon nañ góorgóorlu te farlu tey fàttaliku waxtu wu nekk njàngale sëriñ Tuubaa yi nga xam ne nii yu leer naññ la yoo xam ne dara lëntu ca te dara lëndamu ca ñu tënku ca te bañ a nax sunu bopp ci ay demaleek fekk la yoo xam ne nii kenn mënu cee e, sukkandiku yàlla noonu suñu borom tabaaraka taala defal tawféex ba ñu dégg sëriñ bi te dund ko ndax loolu moo ñuy jariñ àdduna moo ñuy jariñ itam àllaaxira ñoo ngi sant bu baax mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci jàppale gi nga xam ne nii waxtu wu nekk ñoo ngi koy jàppale waa daara Hikmatul mi rawatina ñu bokk ci association bi nga xam ne nii am nañu carte membre te weer wu ne itam danañ def seenu dërëm ci liggéey bi ñaari téeméer wala téeméer wala ñeenti téeméer lépp luñ ci def ci liggéey bi la jëm damay wax ne ah liggéey bi ñoog yéen ko tàmbalee ndoo fii mu àgg itam yéen ko fi aksil te ñoo ngi ñaan weesu ko la sëriñ Mouhamadou Fadal waxoon keroog ba mu ubbee jumaa ja ba noppi dafa dem sukk ci barabu ku tedd ki ne ko mbàkki de eh, fii lanu ñu toll moo tax ñu toll la def waaye bu ñu ko weesoo yi daa ñu la fi weesule kon ñu nit ñaari daara yi nga xam jot nañ ko taxawal muy ca Touba gannaaw bu ñu taxawalee ji ci cees mu am at rek suñu borom defal ñu tawféex ñu ubbi jeneen ca Touba ah ñoo ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala may ñu itam saa bu ñu xëyee rek weesu ko ci liggéeyub lislaam ci liggéeyub Serigne Touba.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 in uridu illa al islaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'uuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim